na Idrissa Seck Yankoba dem na pour jéggalu tuub li mu bëggoon a def ak li ñu doon wax naan day diiroonteeg mhm. na këram démb journaliste yi kii na envoyé nga ma affaire yi léegi jéggalu na wan ne ko foo nekk fa nekk mhm. mi ngi ñaanal na ko mhm. donte ni xam naa yàgg na mais ñaanalaat na ko ñaan gu bees moom da koy ñaanal rek ah na ko waaw léegi nag li gën a garaaw mooy ginnaaw ba mam bay defee loolu ki euh, Yankoba defee loolu nag Idri nee na ko mbay may ma ma xalaat lan lan moo tax journal yi xëy naan comédie show waaw waaw Idrissa Seck de bu fekkee ni naxantewuñ te yaakaaruma ko. Hmm. Euh, ki nga xam ne mooy ba jatara maanaam jaxase na ko ak askan wi. Yankhoba waaw ci naka. te xam na ko ni xam na ni li ba xam na ni li muy def nii mënut a nekk mais na ko dugal ci bopp Sénégal yi rek ndax ñu bëri dañ ni si Seck kum dugal rek nga wor ko doo génnaat ñu ne Idrissa Seck da koo iñaane li mu doon ba tax mu dàq ko ndax li mu wax iñaane na ko poste beek yooyu mhm. maam mbay daal di ñëw kii maan maam mbay sax waa ji yanqo ba ñëw mhm. ni ko mbooleem poste lu mu si man di doon yaa tax ma am mhm. lépp a ngi ni delloo naa la ko damay démissionné si poste bee ñëw si yow ànd ak yow loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko jaxase ne ko sénégalais yi léegi nag ñu koy diglu amatul lu mu wax mu ne ko maa ngi xalaat waaw voilà léegi kon fi mu nekk nii. léegi man pax la ko maam bay dugal mbedd mu ko sol. mbedd mi mu ko dugal kay mooy jaxase na ko sa kii ñi ñu naan Idriss Seck nag vraiment bu doon galaas tey seey na Idriss Seck ñii ne Idriss nangam loolu lépp te kii xam na tey ji bu ko indi woon dimis démissionnaire yaakaaruma man dina démissionné. ah ki dem tuubi jégalu kay waaw loolu kii na rek jaxase ko sa Sénégalais yi mais bu ñu ko woon démissionné bu doon démissionné du ko tàggu si. Hmm. Hmm, day démissionné. kon léegi noo gisee Sénégal yi nag li li comédie soow la maanaam ñii dañoo bëgg a crédibiliser waat seen bopp. Hmm. ba Sénégal yi bëggaat leen mais ci caaxaan lañ nekk loo gisee Sénégal yi wax lool. ah Sénégal yi de bañuñu leen waaw ah, Sénégal yi bañuñu leen ñoom nañ nekk si seen kii rek noonu baax na nañ doxal daal seen xool nañ toje seen bopp ci nax. Hmm. d'accord alaaj waaw encore euh, gars yi ñëwaat nañ. xëy na nga am ci beneen gis-gis parce que carte gi changé na. yaa ngi ko ba dem ma ma xalaat yi nee nañ comédie soow la waa gars yi nag euh, xam nañ mm, gars yi parce que ñii ay comédien lañ wax dëgg fa yàlla ñii moom ci comédie dëgg dëgg dëgg lañ nekk. xam nga ñoom defe nañ ni ay pexe la ñuy lijjantikoo ba nekkaat ci xolu sénégalais yi comprendre mm. Mm. loolu la ñu foog defe nañ ni jeu yi ñuy jeu gis nga politique bi ñuy politique. dafa xew yi. xew yi waaw dafa xew yi quoi politique bi ñuy politique fi ñu toll nii. maanaam. Euh, bu doon tey jii kii la jeu yi ñuy def yëpp dañ ko jeu jeu jeu jeu ba nit ñi xam hmm. sax li nga xamante ni bi moom lañ naan hmm. donc nag euh, Idrissa Seck bu fekkee ne ñoom ñaar amuñu benn problème Yankhoba Diattara rôle bi mu joué démb ñëw ci ki nga xam ni mooy Idrissa Seck ginnaaw bu mu looloo hmm. maanaam te ni muñu ñu boppam mooy moom du dafa am kilifa bu amee kilifa war nga yëkkati yenn kàddu yi te doo déglu sa kilifa waaw vraiment bu fekkee ne am na kilifa gi muy woote ah. démb ni mu wootee ni dama am kilifa war na yëkkati yenn kàddu yi di wax wax boo xamante ne bi dafay concerné parteem te dégluwu ci kilifa gi. Hmm. loolu am kilifa la. donc loolu ab xalaat la de. donc non dañuy. maanaam nu muy waxee ci cadre. nañuy waxee ci cadre ki ba noppi da nga ne danga am kilifa. ok am na yoo xamante ni bi boo nekkee ci parti xam ni parti di doxee. am na yenn kàddu yoo xam ne balaa nga koo yëkkati di nga déglu parti mais boo bëggee taxaw jëmmal dëggal kiiwu kiiwu loolu ah hmm. donc dëggal li nga xamante ni mooy candidature président Macky Sall ànd ak moom ci troisième mandat te yow sa kilifa waxul nga ne am nga kilifa ah? ba loolu indi problème bi bañ ne mooy kii donc nañ ñu dimbali ñoom ñaan ñëpp ci ay jëwu caaxaan lañ ne <laughs> xam nga ay magi caaxaankat di leen seetaan dafa metti <laughs> wax dëgg fa yàlla man daal wax dëgg fa yàlla son bi mais alaaji am na lu beesaat. lan moo fi bees. mooy dem na waa ji nee na ko léegi nee na ko ma il ma ah, xalaat ci liggéey. yooyu yëpp fi mu toll noonu nar ak lu ñuy def suñu yoon newu ci ay nit lañ ñu ne ci seeni bopp rek ci seen jëmmi bopp dong lañ ne newuñ ci réew mi ñu ne ci seen bopp nag man sooy wax dëgg fa yàlla. Euh, seeni mbir mais yaa toog fii ni ci troisième mandat di digal président Macky Sall bu ko def. waaw Idrissa Seck taxaw dimbali la ci loolu moom it nee na moom d'accordul parce que loolu warut a am. Hmm. kooku nu mu nekkee ci boppam. dama ne euh, man. kii ca doon jéem a nekk tuub na nee na ko maa ngi jéggul dootul am. ma ne maa ngi tuub lan moo fi kii ba ñuy tuub. li mu dëggal maanaam li muy saxal te te dafa. léegi daal li ñu mën a dégg daal bu fekkee ne kilifa gi muy wootee dëgg la kon idée ko wax waxal lii après ma doxalee nii nga doxalee waat nii bu fekkee ne kilifa gi dëgg la kon réeroo wuñ <laughs> kon boog li gars yi di wax ne comédie show lañ ne kon ku yabu jàpp ni ci ay comédiens yu mag a ah. rek lañu def <coughs> jàpp wóor yàlla ci caaxaan lañ ñii soleil levant am nañ fa place. ah wala kii wala beneen bi beneen kii bi. jànqeer jànqeer xaw ma waaw troupe jànqeer xaw ma troupe jànqeer nañ leen jël ñu jouer théâtre ah parce que ci caaxaan la solution humour. solution humour ñi bu ñu ñëwee dañuy rëbb jëkkër gi caaxaan gi day ëpp nag te foofu caaxaan. <laughs> foofu daa bëri caaxaan kat. <laughs> yéen yàgg sukaar rek doy na. boo ci doolee kii boobu day ëpp. Euh, <laughs> caaxaan gars yi ñu ngi laaj sax théâtre bi ñaata épisode la. Eh, maanaam ñaata la. parce que premier <laughs> premier épisode bi mooy damay def conférence. Ah, ah. bàyyi naa ko. waaw ah. daa def post supprimé. Mm-hmm. Euh, woote sa kër ni da ngay tuub. ni ko mm-hmm. dinaa ci xalaat ñu ngi ci cinq épisodes. waaw des na xëy na peut-être mën naa am li ci des bariwut. Mm. buñ ñu wiiri wiiri nag. buñ. wiiri wiiri wiiri dem ba ñëpp naan na jeex. na am fin daal. waaw hmm. buñ ñu wiiri wiiri. d'accord. c'est bon xam naa Sénégal billaahi nit dina fi faatu ñu naan dey foo mi ngi mel li nga doon wax léegi naan benn waaye dañuy maa def lii ñu ni ko defoo loolu. xam nga dafa metti nag yow nit kuy dëggal ñu ne la ngay caaxaan c'est grave.